da koy jël da koy daan bu koy jël di ko daan dara xewagul daw na jëli Jackson dóor na ko da koy jël da koy daan bu koy jël di ko daan. jërëjëf kooku mooy ñagas numéro 2 école Cheikh Mbaba moom itam di doomi bawal mu mel ni moog Jackson daa mel ni bi arbitre su sifflé léewtoo bi ñagas dama gis dafa dafa daar dafa gën a wàcc.

moom parce waa ji mënu la miima song dem ba lay siwul agsiwul mhm. nga sigi taxaw ne da nga sa loxo koroo ko jàppoo fenn ne da ngay dóor da ngay dóor épilkir te fekk jege na la waaye dafa sëg rek jàpp ñaar tànk daan ko hmm. kon Jackson moo gën a yombal moo ko ko gën a yombal quoi kor dangay ngay téye ba pare dóor boo boo épilkir da ngay hmm. téye kor dóor hmm. doog a dóor xoolal film combat bi. loxoom mhm. teguwut ci kaw. mu ne mhm. day dóor épelkit te mhm. mu ngi waa jàng ci tànkam. sëg ci tànkam mais da lay song rek daaneel la. moo tax a baax day bëri ji ci ah, ah, na fii ci. Oh, voilà mu ngi noonu day gën ci àll bi dem da booy mën ni bi mu ko amee bi yónnee na ko tey moom ah, waaw waaw koy am parce que njëkk na ko nat mu rëj waaw bi muy songaat nag dafa fekk waa ji da ko jege trop boo xoolee mu ngi tibb suuf di ko hmm. xool di ko xool parce que moom songa rek la bëgg actuellement nii bien sûr waaw mais waa ji finalement moo ko yombalal quoi mhm. waaw gis nga fële weccoon nañ fa tuuti weccoon nañu tuuti waaw téye loxo waaw gis nga mu dem mu dem eggul mu dóor voilà li nga hmm. doon wax a ngi noonu dëgg la nga dëgg daa dem dellu siwaat dellu siwaat dafa ñëw dugg dafa mii na talal loxo bi reculer waat arrière taxaw xaar ko mhm bi muy ñëwaat nak waa mom mu ngi yóotul loxo bi ne day day jéem door epil ko sa loxo jappul mais da lay song mënta sotti gis nga dafa song gis nga hmm yaangi taxaw ni da ngay door epil ki dajale sa ñaar tànk mais da lay song ah bërekat la da lay songu bu la <laughs> bu defé ben erreur touti bu dellusiwaatee da koy réparer ci le voilà non la na ma sha allah amna solo Mor defe na xalé bi xam nga ko da ñagas mi yena bok écrit wa ki sama rak la mhm. yaayam suñu koñ la jógee yaayam doon sama badjan sama rak la sama lepp la mhm. doon xale boo xamante ni nii. Mhm. xale boo xamante ni nañ ko bàyyee xel. waaw niru na ko de. waaw. yar naa daanaka man ak moom. Mhm. comme beton ak ciment rek. moom nag mënu mu wax si moom. Mhm. li may wax si moom bariwul. da xale bu am jom. moom ñagas. te ni ñu gis nii bëggul defet. déedéet. kon kooku mbër la. waaw démb wax na ko ci bi ma koy jëla ah. moom bëggul defet. moo tax combat bi bi mu fi daanoo ma daanu. ñaar ñu bañ defet nag ñoo daanu suul boobu noonu. <laughs> waaye nag dañ koy sant yàlla. Mm-hmm. xam ne yàlla lii la ñu dénkaloon. waaw moom ñagas. Mm-hmm. xale bu am jom. dëgg la xale boo xam ne ne ko bawal bàyyee xel. Mm-hmm. man daal li ma koy dollee ñaanal fan wu gudd ak rek. Hmm, xam ne moom moom moom li moom moom moom dafa bëgg làmb. daa bëgg ni ma bëgg làmb moom noonu la bëgg làmb. waaw ah, niru na ko yàlla na ko yàlla defal jàmm. am na ah, solo yàlla na ko yàlla defal jàmm. am na solo macha allah kooku mooy ñagas numéro 2 ñu koy félicité ah di félicité son entraîneur Baye Bada Soum du mën a ñàkk léegi nag dañuy dem ci grand combat bi diggante Gris ak doomu dàngu foofa tamit ah daa mel ni combat ba tiré na à